mbokk internet yi safoo Feeling Dakar TV dal leen nag jàmm ci xibaar yi li ci gën a fës ñeel ex animateur foofa ca télévision Futurs Médias moom nag ginnaaw bi mu toogee ab diir kenn gisatu ko daal nañu koy gis ci ab interview bu mu doon amal ak mbay lambar lambar moom nag nee na dafa mel ni rek dañu ko mettre au frigo ndax nag boobu ba léegi ma ngay jotub salaire am chaque mois waaye nag kenn woowu ko ngir rek mu daal di def émission ca télé ah, ginnaaw bi nag ci la ñu ko laaj lu tax mënoo kii di Ndiaga mu ne ñoom ñaar déggante nañu bu yàggul dara dolli itam moom du jóg wala sax muy jël téléphone am di be def benn démarche di leen woo ndax nag moom Exidex ci boppam bés bu amee loo xam ne ma ngi koy def ca télé ba intérêt télé ba la waaye du intérêt ndax nag moo leen di may xaalis waaye ñoom mayuñu ko xaalis kon nag du yëkkati téléphone am di leen woo di leen wax quoi que ce ci lu jëm ci wàllum liggéeyam rax ci dolli itam am na yeneen métier yu bari yoo xamante ni moom Exidex am na ko kon nag bu fekkee benn métier lañ ko ci dindil muy maanaam feeñu tele gi amut lenn lu koy wàññi ndax nag ma ngay def ay gannaawam rax ci dolli itam ñi ne ñoo ko bëgg di xamal ni ñoom ñaar ñooñu sax ay respect moo ndax fu ñu ko gis rek xam ne seenu mag moo taxaw rax ci dolli itam daañu ko jox respect bi nga xam ne moom la yellool moom excité loolu la daal xam le jëm ñi nga xam ne ñoom ñooy waa télévision Futur Média ba tey rek ñu ñëw ci père bu xar mi nga xam ne ab animateur la fële ca télévision Futur Média mi ngi mel ni nag kuy tontu excité jëm ci rek di wax waxi aar naan aar mi ngi fay képp ku aar fayul rek na jàpp jàpp ne yow yaa joxul aar gëddëm yow yaa joxul aar li mu yellool ba tax aar bi mënulaa faj waaye nag moom ma ngay gërëm ak sant ñi nga xam ne ñoom ñooy ay directeur am fële ca télévision Futur Média rawatina nag njaganduur moom père bu xar nag ginnaaw ba mu waxee loolu ba pare yëkkati kàddu ngërëm jëmee ko ci njaganduur ma nga ñuy xamal ne moom digganteem ak njaganduur yàllaa ko def rax ci dolli yàlla moo leen boole ba tax na lépp loo xam ne war na ci seenub diggante ñu ngi ko cay defante kii di njaganduur yi day yëkkati des fois xaalis bu bari di ko ko jox te wax dëgg la ci moom kon nag mënul koo seedeel lu dul loolu ndax nag yàllaa leen boole ñoom ñaar gannaaw bam ca noppee itam moom père bu xar ma ngay wax ca digganteem ak Ousmane Noël Dieng ndax nag nee na dañoo daje woon ginnaaw ba muy dem États-Unis moom père bu xar ñu daje ci avion ba mu jëlub sinabam di ko taal di ko waxal ay xeeti baax baaxam moom Ousmane Noël Dieng ginnaaw bi nag ci la am ab commentaire bu négatif di ko wax naan ko père bàyyil marub taat gi ngay def moom nag ma ngay xamal ko xamul rek di waxal euh, Ousmane Noël Dieng ay xeeti baax baaxam bokk na ci ñi nga xamante ni dañ leen di tuddee ay bés ay anniversaire ak bés yu ñàkk fayda yu ñuy def ca Grand Théâtre ñuy dem dafa di fa baat rek yeneen yu ni mel looloo waral mu bëgg leen a wax ne leen am na ñoo xamante ni ñoo ko gën a soxla que artistes yi nga xamante ni ñoom la ñuy baatare loolu moo waral muy wane bonne volonté yi nga xam ne ñoo fi nekk te baatare wuñu kenn keneen kuy tontu Exidex wala ñeneen ñu koy tontu bokk ci équipe bu quartier général Pape Cheikh ak kii di oustaz Pape Anne ñoom nag ginnaaw ay kàddu yu ngërëm yu ñu yëkk yëkkati teg ko ci seenu PDG di Youssouma Jigéen Ndour ña nga koy xamal rek ni ko ku fonk liggéeyam la ku gëm boppam la waaye tamit ku bëgg yonent bi la rax ci dolli itam ay employé am da leen di teg dans des très bonnes conditions kii di Bouba Ndour nag mënatul muñ wax ja moom itam ma ngay gërëm ak sant magam jile dem na sax banaan Youssou Ndour des fois daf ma yéem par le bien de Pape Cheikh Diallo nag la ko yëkkati na ko jëme ko ci euh, magam joojule di yuusuma jigéen nduur ca la ko Pape Cheikh Diallo daal di koy euh, feelu euh, oustaz Pape Anit feelu ko jëm ci kàddu yi nga xam ne way na ko yónnee mooy way woowu nga xam ne ma nga ko canaan kenn du la tuutal kenn du la ñaawal kenn mënu laa teg tuuma ndax yàllaa la seexal mu doon loo xamante ni nag kenn mënu ci dara moom oustaz Pape Hann ba tey ma nga cay xamle rek ni Youssou Ndour ku bëgg yonent bi la rax ci dolli itam ku mën a way yonent bi la donte sax nag musique bi du lu muy daganal ndax nag yàllaa ko aayal ba noppi kii di Bouba Ndour itam def na beneen vidéo bu ñeel Pape Cheikh ma nga ko naan maay sa patron waaye nag bu koor gi jotee say affaire yépp yaa koy moom rax ci dolli itam yaay téye affaire yi ci sa loxo ba tax na ba tax na Pape Cheikh ma nga ko naan je vais maanaam man duma ci wax benn yoon kon nag leneen lu ñuy addu euh, jëm ci euh, salbe bu euh, série Karma moom salbe nag ma nga ñuy xamal ginnaaw vingt ans de carrière yu mu def ci aar bi ma jaar fi nga xamante ni moom mooy Arcos bu Guédiawaay bu tan bombe Euh, xuslu na fa def na fa lu nekk jaar ci spectacle yi nga xamante ni moom la ñuy def théâtre sur scène bi nag ci la dem ca Arcos bu Pikine ma nga ñuy xamal du série Karma rek la na ci Kouthia Show rax ci dolli doon na toppandoo fële ca Kouthia ki nga xam ne moom mooy première dame di Marème Faye Sall rax ci dolli itam daan euh, joué fi nga xamante ni moom mooy euh, ci Abou Bilane ba daan daw télévision Futur Média nekk te doonoon na soxna ci Kouthia kon nag série karma rek la joué donte sax nag série karma yàllaa ci def barke ndax nag ñëpp xam nañ ko ci rax ci dolli itam amee na ci lu nekk moom Salma bu série karma ma nga ñuy xamal ba tey naka la duggee ci boobule série di karma maanaam ab maquilleuse la fa woon maanaam dafa doon defar kanamu artiste yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon di euh, jouer ca biir maison de production boobu li di Marodi moom Selbé nag ma nga ñuy xamal ni ginnaaw ab euh, scène boo xamante ni waroon nañu koo tourner euh, te ka ko waroon jouer amoon retard boo xamante xamante ni rek moom la retardé woon ba mujjul ñëw ginnaaw bi ci lañ ko wax nag ndekoo ndax feeñtele yitteel na la après ci la doog a wane li nga xamante ni moom mooy pasu actrice am wala bokk li nga xamante ni rek mën na ko ci jouer rôle yu bien ginnaaw bi nag ci la ko dugal ci série boobule di kar ñu ñëw ba tey ci Talla Diazaka moom taala Diazaka nag ginnaaw ba mu ginnaaw ba mu dalee ci kaw site internet yi rek ne ñoom dañu koy xeex nañu koy dalal ngir rek muy wane talent bi nga xam ne moo nekk ci moom rax ci dolli itam wax na boppam naan sax ñenn ci sit internet yi bu ñu ko woowee du ñëw li ko waral nag bokk ci rek ab mariage bu doxoon diggante Fat Mbacké ak ki nga xam ne moom muy monsieur Mbaye ginnaaw bi nag ci la ñu gis Miss Monde di euh, doom ci ki nga xamante ni rek moom mooy Fat Mbacké ak Amady Badiane euh, mu noon sax doom joo xamante ni ñu bari dañoo njoxtoon ni euh, kii di faat Mbacké dafa waxoon ni moom mooy yaayam mooy papaam ginnaaw bi nga xam ne Amady Badiane bañoon na ëmb bi bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moom mooy Fat Mbacké moom nag Miss Monde gis nañu ko rek ci mariage yaayam joojule ab interview bu mu doon def wala sax euh, benn ci ay journaliste yoo xamante ne dañ koo dékk micro kii di Talla Diazaka nag ma ngay ñaawlu lu ni mel bay wax sax naan faat mbàkke na yaraat doomam ba kenn ku ci nekk rek euh, boo amee ab site internet wala ngay ab chaîne YouTube bëgg koo wane euh, doo ko mën a wane ndax nag ñoom ñaar ñëpp que ce soit Amady Badiane Amady Badiane frère am la waaye tamit Fatou Mbacké xam na ni ku baax la donte ndax bu ñu demee ba di ko wax loo naan ko waxal ci sa papa ju bees ji loolu du du lu muy rafetlu benn yoon ndax xale bi dafa inconsciente rax ci dolli itam xamul lu muy wax ci micro rax ci dolli itam moom Talla Diazaka ma ngay wax ca journaliste ba naan ko yow naan yenn ci journaliste yi dañoo war a def formation xam li ñuy def parce que xale bu ndaw nga di ko dékk micro kenn ku ne xam na ni éthique du déontologie rax ci dolli du liggéeyub journal moom Talla Diazaka ba léegi ma nga ñuy xamal ne rek ci way wi mu nekk wala ci aar bi mu nekk ginnaaw yàlla ak yonent bi ay waajuram ra ci respecté ginnaaw li koy dëggal nag bokk na ci ay menaces yoo xam ne mu ngi koy jot ginnaaw ab appel téléphonique boo xamante ne rek daal dina koy jot kooku wax ko ne ko dama laa bëgg rax ci dool itam samay doom yow la ñuy bëggee waaye nag sa papa moo lay yàqal lu bari moo tax ba sénégalais yi bëgguñu la ndax dafa rangé wu ci côté ki nga xam ne moom mooy gouvernement bi rax ci dool yi itam saa bu génnee dafay xas ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko boo bëggee nag mën naa laa jox million millions di la koy financier ngir rek nga daal di wëyal sëp ëpp liggéey waaye nag cinq millions yooyu liy waral ma jox la ko bokk na ci nga génn faral Ousmane Sonko ndax nag nga mën a contredire ki nga xamante ni moom mooy maam Gor Diazaka di sa moom Talla Diazaka nag ci la daal di am lu ko metti wax ko ne ko oh, dara wala sax rien au monde tax ma daal di contredire sama baay mooy sama way jur mooy sama wasila mooy sama lépp ak nu mu mën di doon ak nu mu mën di mel ak lu ko mën di neex te bokkuñu gis damay ànd ak moom ndax sama baay bu neexoon yàlla ma doon doomu Serigne Touba wala sax ma doon doomu Alaaji Malick waaye comme que Mame góor jasaakaay sama baay dama koy respecté lenn laa sekk ak moom muy may génne album ne ko papa déglul wala sax ma liggéey ba amuy koppar daal di ko koy jox ne ko bàyyi ñaanal ma lool laa sekk ak moom waaye sekkuma ak moom lenn lu ma koy contredire te dara du tax wala lenn du tax ba ma mën a contredire sama baay ndax nag bu dul da sama baay la moom taala jasaaka loolu la daal di xamle ci baayam boobu la di maam góor jasaaka nee na nag fi mu toll nii ma ngay jot ay menaces yoo xamante ni soxna sa ca bopp ma ngi koy wax wala waaja ca boppam ma ko koy menacé ginnaaw bi rek dara ci aar bi di nga réccu loo may gàntuwe nee na nag li waral waxul boobu ba léegi bokk na ci moom bëggul ay détails waaye nag menaces yi dafa daal di yokku rax ci dolli itam dafa gën a bari te saa chaque jour mu yónnee ko vocal yoo xamante ni mi ngeek moom ba tax na rek muy dénoncer les faits di wax ne moom politigul àndul ak gouvernement moom Talla Diazaka di doom ci Mame Gor Diazaka ñu wax ci euh, Samy Dia wala sax Betty euh, Bouchra moom nag ginnaaw bi nga xamante ni rek daal dinay tàggee ay nit ñu bari wala sax ay célébrité yoo xamante ni ñu nit ñi ràññee lañu ñu bari loola jëm ci euh, li ñuy liggéey wala sax ñu ràññee leen ci li ñuy liggéey moom Betty Dia moom Samy Dia nag euh, ginnaaw bi nga xamante ni rek fan yi daal dinay rey Marichou euh, wala sax mu rey ñeneen ñoo xamante ni bokk na ci Marichou mi nga xamante ni rek marqué nañu bari ndax nag ginnaaw bi mu ko reyee dafa wax rek ni cause yi nga xam ne moom moo ko rey jëm ci accouchement bu mu doon accouché am ñaari seex ci la ko yàlla moom mu doon nag loo xam ne lu nit ñi di métit la ginnaaw ba mu ca jógee nag moom Sami Dia moom dafa daal di xëy rek daal di faat ki nga xam ne moom mooy roi des arènes di mooduloo te sax nag muy faux nouvelle yoo xamante ni fake news yoo xamante ni lu ñuy ñaawlu la jëm ci rey yi nga xamante ni ma koy wëy di rey célébrité yi ak di ko rey ñi nga xamante ni ñoom ñoo tekki ci réew mi dara moom nag Betty Bouchra wala boog Sami Dia ma nga ñuy xamal ni rek kontam boobu le dañ ko piraté du moom ba tax na rek ñuy wëyandi xibaar bi di leen ko toppal ba baa ñu ci am lu ñu leer Wally Balago Seck prince des Faramareen mi xëy génne ab single bu bees dubbee ko xëy yaa mu doon way boo xamante ni nag way wu doy waar la ndax nag moom Wally Balago Seck ci boppam ma nga cay dénoncé ab soxna soo xamante ni da doon am doom daal di cay dëdd muy ab ma ngay fàttaliku ay souvenir yoo xamante ni def nañu ko muy doon ay réalité yoo xam ne ñenn ci sénégalais yi wala ñenn ci góor ñi ñu ngi koy dund mu doon lu metti ay fansam nag apprécié bu baax a baax clip ba nga xam ne Wally def na ko te mu génnee ko ci biir koor gi tàmm ñu di ko gis ci artistes yi rawatina nag ku mel ni Wally Balago Seck ci dolli bu ñu demee bay génnee koor mooy que ni dañuy way wayu l'islam wala ñuy way yonent bi euh, moom nag dafa daal génn rek euh, dénoncer li nga xam ne xale mag ñi ñu ngi koy dund wala sax xale jigéen ñi di ko dund ci bu ñuy mu doon loo xam ne ay fansam trouvé nañ ko euh, lu am importance rax ci dolli moom Wally Balago Seck yamul foofu moom nag ma ngay distribuer ay ceeb ak i dawlin ak i soble ngir rek daal koy indi ay jàppandal jëm ci ñi nga xam ne ñoom ñooy néew néew di doole yi ci koor gi nag la ko euh, tàmbali waaye nag duñ ñu ko guleet ndax nag moom Wally Balago Seck moomulee daan na jël ay xar ak euh, loo xamante ni rek ay xaalis la di ko jox ñi nga xamante ni ñoom ay moroomi artiste am waaye nag da cee raw ndax dafa daal di jël li nga xamante ni rek ñoom ñoo féetewee ca euh, Kër Massar ak ak Malika di leen jox li nga xam ne moom mooy dund gi ginnaaw bi nga xam ne ñu ngi ñàkk dund gu cher dañu koy jeexale ak Ama Balde mi nga xamante ne xëy tay di tontu ñi nga xam ne ñoom ñooy laam-laame ne blessure am boobu mu am ci tànk ba tere koo bëre ki nga xam ne moom mooy Gris Bordeaux tri troisième tigre de Fass moom Ama Baldé nag ma nga ñuy xamal rek ni amut lenn loo xamante ni rek moom dar jaral na ko muy tappale banaan dama gaañu ci tànk te gaañuwul rax ci dolli itam ñi ko xamul rek ñoo koy seedeel loolu waaye amu ci benn avantage di wax ne dafa gaañu te gaañuwul ndax nag làmb ji la am rax ci dolli itam amut lenn loo xamante ni rek avantage am la jëm ci gaañu gaañu boobu nga xam ne am na ko wala mu wax ko te du dëgg kon nag nag nañu bàyyi képp koo xamante ni dafa blessé rek ñu naan dafay tappale wala dafa bëggut a bëre euh, moom Ama nag ma nga ñuy xamal ni Modou même bu yoroon ay beeke itam dina bëre ak moom père baaxum euh, moom nag Ama Baldé ma nga ñuy xamal ni waxul ak moom benn yoon waaye nag dafa xam li nga xam ne moom mooy jikkoy Ama ndax nag du euh, nekk fii bañ a bëre te làmb di métier ba noppi muy gaañu gaañu lu naan dama am blessure alors que amu ko kon nag père baaxum daf ko fekk si ci waxam jooju nga xam ne bëggoon na koo waxte mu mënu ko woon a wax ginnaaw ab blessure boo xam ne ah, ma ngi ko am ci tànkam moom ba tey rek ma nga ñuy xamal moom Ama Baldé ne làmb ji mi ngi dox waaye gënoon na dox kon nag nañ ci jàppale ngir rek mu nekk fa mu nekkoon wala sax mu weesu ko ah, jëm ci li nga xam ne ñoo ngi koy jot ci ay koppar jëm ci li nga xam ne ñu ngi koy jot ci ay sponsor ndax nag gënoon naa dox moom Ama Baldé nag ma ngay wax Balla gay 2 tolof tolof yii nii ah, bu mu tax nga xaddi benn yoon ndax nag daan nga fi ku mel ni Yékini daan nga fi ku mel ni Tyson te ñoom ñooñu ñëpp ay gloire euh, nekk ci làmb ji def fi lu nekk kon nag soo demee ba yàlla def euh, sa biddéew àndutul ak ñi nga xam ne ñoom ngay bëreel wala àndutul ak victoire da ngay xam ne rek yàlla la euh, rax ci dolli itam bëre psychologiquement la ndam psychologique la rax ci dolli itam am na loo xam ne soo ko defee ci sa xel rek wax ni dangaa war a bàyyi bëre doomu sa daan kenn kon nag continuer sa làmb ndax champion nga moom Ama Baldé nag loolu la daal di wax ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye wax itam xaritoo gi nga xamante ni xarit xaritoo nañu ko jëm ci jëm ci xarit yu euh, jege yoo kon nag dafay firnde rek ni euh, moom Ama Baldé ab blessure bu mu am ci tànk rek moom moo ko teree bëreeg ki nga xam ne moom mooy Modou moom nag ma nga ñuy xamal ne bis bu bëree Modou Lo bu bëreeg Gris Bordeaux ba no Modou Lo la ci daal di teg bu soobee yàlla ndax nag dootul bërewaat ak keneen euh, ku dul Modou moom Ama Baldé mbokk yi fi la ñuy jaaree tàggatoo ak yéen di jox di daje ni ki ëllëg fii ci Feeling Dakar